motion de censure ba jàllul ca biir assemblée nationale li ko waral mooy que ne cinquante cinq député képp ñoom ñoo voteel ñi nga xam ne ñoo di waa yeewi askan wi ca motion ba nga xam ni daal di woon nañ koy dugal ngir kii di Amadou Ba ak gouvernement am ñoom ñëpp ñu ànd daal di démissionné ndax lañ fa présenté comme déclaration de politique générale doyu leen waaye itam amuñu confiance bu ñuy jox ki nga xam ni moo di Amadou Ba par rapport ak nañ bëgg a jiite suñu Sénégal ñu motion de censure motion de censure ba nag jàllul ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci waa Benno Bokk Yaakaar ca biir assemblée nationale ba lañ nekk di tëpp ak a dal di yuuxu naan fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom loolee di wane te dëggal encore une fois que ne ñoom lenn rek moom mooy seen yitte mooy fexe ba téyewaat nguurab Sénégal teg ko seen ab loxo. waaye nag li nga xam ne moom moo ci am solo mooy que ne waaye yeewi askan wi dañoo def lu ama am solo def lu historique c'est la première fois ñuy gis benn motion de censure boo xam ne nii la mel tey ñu voté motion de censure am lu tollu ci cinquante cinq députés yoo xam ne dañ koo voté loolee nekk na lu historique nekk na lu mësul am Sénégal nekk na loo xam ne itam ça restera gravé dans les mémoires des Sénégalais mais aussi dans les annales l'histoire politique du Sénégal waa Benno Bokk Yaakaar xamuñ sax lan moo xew lii dafay wane tout simplement askan wi député ya fa nekk ils sont bien conscients de ce qui se passe dans le pays am nañ bàyyi xel bu baax bu ñu bàyyi xel ci doxalinu nguurab Macky Sall waaye duñ leen may dara duñ leen bàyyi benn yoon ñuy jël suñu ab nguur jël suñu am réew di ko salfaañee ak a fowe mu nekk nag benn mbégte bu rëy rëy boo xam ne tey gis nañ ko ci ki nga xam ne moo di Farba Ngom daw di yëkkati loxo kii di Amadou Ba ñoom ñëpp ñu àndandoo di yuuxu mel ni mbégte ba nga xam ne sénégalais yëpp moom lañ amoon ba ñu gagné coupe d'Afrique des nations lu ne mel nag ñoom yaakaar nañ ne dañoo gagné la guerre alors que lii benn bataille dong la woon te bataille la boo xam ne opposition bi moo ko gagné waaye ñoom bàyyiwuñ ci xel ndax lu mësul am Sénégal am fi tey s'en est pas rendu compte loolu nag di wane seen cuunete loolu di wane seen ñàkk xam ndax bu fekkente ne waa opposition bi ñoom ñi ngi taxaw di tàccu xamuñ sax lan la ñuy tàccu li ñuy tàccu di lenn lu dul on a fait une chose historique qui n'a jamais été fait au Sénégal te bu fekkonte ne yéen yéen a am majorité absolue wala majorité écrasante kon tey kenn waxatu ko kenn sax du am sañ-sañu wala fitu jamono naan na ngay déposer lu jëm ci wàllu motion de censure waaye lii dafay wane te di dëggal encore une fois que ne ñi nga xam ne ñoo di waa opposition bi am na doole bu mat sëkk bu ñu am mbir moo xam ne kenn seetluwu ko tey bu fekkente ne cinquante ñoom ñoo voteel li nga xam ne moom moo ñeel wàllu motion de censure bi kon dañu naan ani yeneen députés yi nekkee ci opposition bi ñoom ñi nga xam ne dañu war a nekk au nombre de 83 cela veut dire que am na ci lu toll ci 28 yoo xam ne voté lu jëm ci wàllu motion de censure bi loolu nekk na nag loo xam ne équation la bu ñu ko war a posé wu ndax ñoom waa opposition bi ñu ngi ànd booloo nekk benn ba tey ndax ñoom amul division bu rëy rëy rëy boo am seen ab diggante lu ci mënti am lépp dina leer aux yeux des sénégalais lépp dina leer fii ak 2024 ndax kenn ku ci nekk rek yaa ngi tàmbali di wane sa bopp waaye nag nañ xam ne population sénégalaise moom mooy décider quel que soit ce qui se passera quel que soit loo xam ni ñoom mën nañ koo décider wala ñu daal di koy jéem def par rapport ak li nga xam ni moom moo ñeel Sénégal réewum jàmm la réewum salaam la duñ nangu kenn di ko jéem a yàq waaye itam duñ nangu benn député di fi def loo xam ne naka sudul noonu la la nga xam ne député opposition bi def nañu ko nekk na lu historique nekk loo xam ne ça restera gravé dans les mémoires des Sénégalais waaye ñoom itam di leen di wan encore une fois que ne am nañu nekk fii di surveiller l'action du gouvernement te duñ leen may dara te léegi nag ba ci sax la population sénégalaise dañoo yeewu bu baax a baax ndax dootuñ nangu kenn koo xam ne day ñëw di leen duppe muy ku nekk ci pouvoir muy ku nekk ci opposition képp ci nekk rek dañuy saytu bu baax a baax say mbir laata ñu ciy dugg te xam ne kat population bi yeewu nañ te ñoom ñooy ñi nga xam ne toujours ñoom ñooy am le dernier mot te képp koo xam ne rek yaa ngi leen di jéem a xamal na yow mi kat sa bopp ngay nax AGT News